salli ala muhammadin sayyidul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nga xamante ni bi yéenay safo di seetaan chaque jour émission jotaay alxuraan fii ci Dakar Buzz te na dañ leen a indil benn gan boo xam ne macha allah xam nañ ko ci yëngum diine xam ko ci jàngale diine xam ko ci jàngale alxuraan ak sunna moo tax mënuñoo def émission bi te di ko teggi moo tax tey ñu ñëw seet si ko fii ci bërëbam duñ guddal dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo mooy oustaz Mor Kébé asalaamaaleykum wa rahmatullahi oustaz waaleykum salaam wa Mhm. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mhm. ñu ngi leen di dalal Amar yow ak uh, mbokk yi nga xam ne yéen nga ñoom nga àndal mhm. te ngeen bokk nekk ci Dakar Buzz di kontaan trop ci seetsi bi ngeen ñu seetsi ak uh, yëngatu bi nga xamante ni yéen a ngi koy yëngatu à travers émission bi ak yeneen activité yi nga xamante ni yéen a ngi ko am ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di dalal macha allah macha allah bala ñoo guddal dañuy bàyyi oustaz mu présenté wu comme ça ñi nga xamante ni bii am na ñoo xam ne xam nañ ko ñu bëri mais ci Dakar Buzz am na ñoo xamante ni bii jotu ñoo xam kan mooy euh, oustaz Mor kebe comme ni ma ko waxee sànq mu nekk jàngalekatu diine al al alquran ak sunna mu présenté wu tuuti balaa ñuy dugg ci li nga xamante ni mooy question réponse yi. waa alhamdulilah seen mbokku jullit. Mm-hmm. di Mor Kébé yàlla def ñu nekk fi nekkoon ay ndaw ci réew mi Sénégal mm-hmm. yàlla xëriñu bi nga xam ne ñu ngi nekk ay jeunes. Mm-hmm. mën naa di génn ci adolescence commencé di yittewoo affaire xam-xam ak mm-hmm. affaire diine. avant loolu moom jaar nañ ci ay mbir yu bëri yoo xam ne comme jeune Dakar waaye rek. voilà entre Pikine ak waagu ñaay foofu. jaar ci yu bëri daal. yàlla xëriñu ci affaire diine. ñu soog a commencé di góorgóorlu. ci wàllu diine ak ci wàllu jàng. dama koy faral di wax ci encourager jeunes yu bëri di leen wax ne. Mhm. il n'est jamais trop tard. voilà àdduna léeg-léeg yàlla mën na la nattu sa ndaw nga am yu bëri yoo xam jaar nga ci. mais jamono bu nekk rek. Mhm. mën nga ressaisiru. Mhm. dellu si waat coller les morso morceaux. daal di jéem a xool saw yoon. boo ci góorgóorloo yàlla ubbil la bunt. voilà parce que suñu ndaw fi ñu ko tàmbalee woon. ku ñu woon tey dinañ dem ba mujj nekk ci wàllu xam-xam di ci yëngatu. wax dëgg yàlla duñ ko woon gëm ci jamono. ndax euh, bu ñu suñ jàng teelee yàqu jaar nañ ci lu bare bare bare jóge fi dem ñu bu ñu ci àll bi ñu dem bàyyi ji foofu nekk ci situation yi difficile mm-hmm. yàlla def ñu jóge foofu ñëwaat Dakar mm-hmm. dugg ci wàllu mécanique nekk ci garage mécanicien yi mm-hmm. ci ak comportement yeeg wàllu jikko yu doy waar yi surtout Pikine jógeeti foofu demati ci affaire euh, apprenti super yi nekkati ci monde boobu mu nekkat beneen monde bu doy waar boo xam ne lu ne dund nañ ko foofu lu ne gis nañ ko fa jógewaat foofu encore te ma def tailleur jógeeti foofu lu ne dugg nañ ci daal. macha allah ba yàlla suturaal ñu ñu dem ba affaire diina yitteel ñu ñuy góor góorlu di jàng. Mhm. di jàng yittewoo xam-xam nekk fii si réew mi ba yàlla dimbali ñu ñu am bourse. Mhm. am bac am bourse. Mhm. dem jàngi ji université Médine bu Arabie Saoudite. macha allah bu ñu demee foofu tamit ñu def spécialité bi ñu fa def. mooy hadith science wu hadith. ak li nga xamante ne mooy yeneen science islamique yi. ñu def foofu ba am suñu licence dellusiwaat ci réew mi nekk fi di góorgóorlu ci wàllu jàngale mhm. ak tasaari xam-xam ci loolu daal lañ nekk mooy suñu yëngatu guddi ak bëccëg macha allah mhm. macha allah bu ma dégloo bu baax maanaam taxassus yow taxassus bi nga def mooy ci wàllu xadis daal waaw xadis mooy sama spécialité ndax euh, faculté bi ñu génnee mhm. lu ñu fay jàng du xadis en tant que texte mhm. bu ngay teg nii di ko lire dëgg la mais science bi mhm. science bi bu ñu ko waxee mooy naka ngay jàngee xadis ba xam wér na wala wérul jàng chaîne de transmission bi ñoo ñu ci nekk nettali ko bàgg ci saxaaba yi ñu nettali ko jële ko ci yonante bi kenn ku nekk danga nga koy étudier étudier dundam dem ci li ñu tuddee kutubu at tarajim muy téere yi nga xam ne mooy wax ci wàllu dundu ñooñu mm-hmm. di wax ci aljarx wa taadil lañ koy tuddee mm-hmm. nga di nga jàng xam-xam lañ tuddee ilmu ruwaat mm-hmm. jàng tadwinu sunna jàng musalahul hadith jàng taxrij jàng xeetu xam-xam yu bari yoo xamante ne dafa aju ci loolu ak naq da nga koy jàng ba yàlla euh, def nga mën a am outil yu lay permettre boo bëggoon jël benn xadis tey jàngat ko facilement di nga mën a xam xadis bi ci yan source la nekk boo demee ci source yooyu nga mën a jël chaîne de transmission yi ak yaxu xadis bi dem étudier ko ci téere borom xam yu jiitu yi ba mën a xam résultat bi ndax lii wér na ne mën nañ ko askane la yonent bi wala wérul dëgg la science la pure hmm, dëgg la voilà science la macha allah ñu gis ni oustaz am na ñoo xam ne ñu bëri ñoo xam ni comme li ngay wax ni jànguñu ilmul xadis wala jànguñu mustalax yu bëree bëri ñu sax taxasus ba bëri na ay xadis yoo xamante ni nit ñi dañ koy baaxoo di wax ci seen làmmeñ am na ñoo xam ne sax seen mais dañ koy dégg nii rek di ko wax euh, di ko wéral ba pare mu nekk xadis yoo xam ne boo gëstoo ba ca biir euh, wérul ñooñu lan nga leen di wax ak bu fekkente ni war nga wax benn xadis boo xamante ni bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, waxoon na ko képp koo xamante ni waxal na ma loo xam ne waxuma ko am nga kër fa nga xamante bii mooy safara ñooñu lan nga leen di wax pour ñu gën a mën a gëstu xadis parce que après alxuraan xadis moo ci topp. dëgg la mhm. waaw xadis bu ñu ko waxee mooy li ñu jàngee jëlee ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy maa nusiba ila nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasf wasf imma jibilli aw xuluqi mooy lépp lu ñu askanale yonente bi alayhi salatu salaam si lu mu wax wala mu def ko wala ñu def ko mu saxal ko ci wàllu diine wala mu nekk melokaanu yaramam melokaanu jëmmam ci nu mu doon soloog nu mu doon bàyyee karawam wala ni nga xamante ne noonu la amee woon ay jikkoom loolu yëpp xadis lañ koy tuddee léegi loolu science la boo xam ne borom xam-xam yi dañ koo teel a yittewoo depuis ci jamono saxaaba yi depuis ci jamono xilaafawu Aboubacar ak Omar dañ teel a yittewoo teg bët xadis boobu pour hmm. bañ a sàggan ci niñ koy nettalente balaa ni ñi di ci jaare yàq diine hmm. ndax waxal ci yonent bi alayhi salaam dafa gaaw mën a yàq diine lu mu waxul dafa gaaw mën a yàq diine moo tax ñu teel ci vigilant mhm. vigilance boobu nag moo teel a indi ñu commencé di ko tegal ay règles yoo xam ne ci lañ koy nettalee mhm. boo koy nettalee tamit ci lañ koy mën a jëlee ci yow mhm. pour rek protéger l'islam parce que comme ni ko waxee da nga alxuraan ne xadis voilà bu dee ci liñ tuddee masdaru talaqi mooy source boo xam da nga ciy jëlee sa diine ñoom ñaar dañuy nekk à pied d'égal ci wàllu pratique ci wàllu jëf da leen di boole ñu complétente benn bu nekk dafay complété moroomam léegi complémentarité boobu am ci diggante xadis ak sunna ça ne veut pas dire que ni ci wàllu ngëneel alquran ci wàllu xadis ak euh, quran ça ne veut pas dire que ci wàllu ngëneel alquran gënul bu dee ci ngëneel alquran waxu yàlla la dara raxu ko moo gën ci tedd ak ci mbaax ak ci wàllu yool mais ci wàllu pratique dañuy compléter seen morom benn bu nekk dafay compléter moromam moo tax ñoom ñaar aliment al xatibul baghdadi ci alkifaaya mhm. mu ne ñoom ñaar ñoo nekk même pied d'égalité ci wàllu jëf mhm. doone damay jëf bi soog a jëf bi mais dañuy mottalante mhm. léegi ci wàllu sàggante bi ci nit ñi sàggan ci ci xam ko loolu commence dafa yàgg mi ngi tàmbale ci njàng mu njëkk mi fi nekkoon mhm. dañ daan jàng lu bëri ci wàllu fiq di ko mhm. jàng ci tafsir di ko jàng ci làkk arab di ko jàng ci matière yu bëri mais xadis mhm. xam-xamam teelu fi développé wu ci jamono yooyu ci jàng ko spécialisé wu ci pour xam naka la ñuy lijjantee bu wér ak bu wérul moo tax ñu bëri ci ñi fi daan jàngee dañu tàmm rek buñ gisaan téere ñu ne xadisun sharif wala ñu ne qaala rasulullah nga nekkoon li yonent bi moo ko wax sans pour autant que nga dem lijjanti xool ba xam wér na wala wérul mhm. léegi loolu nag dafa dem ba installé wu ci nit ñi mhm. rawatina ñi nga xam ne seen njàng soriwul mhm. mais loolu borom xam-xam yi tamit bàyyi nañ ko xel li ñu tuddee al ahadithul mustahira alal alsina loolu la ku mel al imaamu saxaawi bind téeram boobu de al maqasidul xasana dajale xadis yi nga xam ne dafay tasaaroo ci làmmiñu nit ñi te wérul am na ci yoo xam ne amul sax cosaan boo ko doon wëral téere boo xam ne fa nga koy fekk ak chaîne de transmission sax doo ko gis da ngay jékki-jékki rek dégg nit ñi di ko wax doo xam fu ñu ko jëlee lu mel irifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni da ngay dégg mu siiw xam leen ma balaa ngeen may jaamu bu ngeen ma xamul nu ngeen may jaamoo du xadis mm-hmm. ça n'existe nulle part ci téere xadis yi mais ngay gis imaam taxaw ci minbar di ko wax mm-hmm. léegi nag sàggante googu buñ ci continuer mën na yàq lu bëri ndax li ñu jëlee suñu yonent bu dee dañ koy diine woo di ko jaamoo yàlla mhm. wax dëgg yàlla war nañ ci vigilant di xool bu baax mhm. ci yan condition la tegu ndax wér na wala wérul mhm. sinon mën na yàq lu bëri ci dina jullit yi dëgg la mu am beneen xadis boo xam ne tamit siiw na nit ñi di wax ni yonent bi sallallahu alayhi moo ni sàkku leen xam-xam donte da ngeen dem ba siin utlubul ilma walaw bi siin waaw xadis bi wérul du xadis bu wér utlubul ilma walaw bi siin al ilmu min al min al mahdi ila al lahdi wérul daaru xadis yooyu mhm. talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima mhm. ziyaada boobu ñu ci yokk wa muslima yokk ko ci mhm. muslima bi wérul ala kulli muslim rek la léegi yooyu yëpp da nga ko léeg-léeg boo koy bu dee borom xam-xam boo xam ne xam na lu jëm ci wàllu xam-xamu xadis nga wax ko ko dina xam ne ci xam-xam la tegu wax ji nga ko wax lii mhm. mais ñenn ñi dañ yaakaar yow ci waxee na wala wérul mhm. alors que xamuñu ne xadis est bi am na ñoo xam dinañ ko xam mais est-ce bi du leen waaw loolu beneen mbir la xam nga mhm. bu fekkee da nga xool ilaa jihatil maana mooy da nga xool yow ci wàllu sens bi naam sens dara mën na wér mais nag askanale ko yonent bi du lépp lu sens bi wér rek nga askanale ko ko ndax loolu c'est quelque chose de relatif. ndax hmm. yow da ngay am déggin ci benn xadis ne lii de hmm. sens bi wér na war naa ko ko mën a askanale keneen ne la noonu. Hmm. moo tax kon bu fekkee xadis bi wérul. mu leer ne wérul nañ leeral ne wérul. mais nga ni maanaam bi ne wér na. maanaam bi lu baax la. lu mel ne comme li ñu wax léegi mhm. mooy xam-xam ba ngay nekk ndaw ba ba ngay nekk mag mhm. wala na nga jàng ci yu mel noonu mhm. maanaam bi wér na lu mel ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla moo ma yar mu rafetal sama yar maanaam bi wér na mais xadis bi wérul amul cosaan ci sunna boo ko doon wër doo ko gisal benn téere ci téere xadis bu wér boo xam ne fa la nekk voilà loolu moo tax kon ñenn ñi nga xam ne dañuy wax ne lépp lu leen dikkal ci loo xam ne maanaa bi lu wér la mm-hmm. mën ngeen ma ko askanale mu mel ne maa ko wax même bu ma ko waxul am na benn xadis buy wax loolu mais xadis boobu moom ci boppam wérul mm-hmm. voilà xadis du noonu lañ koy dox nañ ciy doxalee ndax buntu boobu buñ ko ubbee rek mm-hmm. nit ñi dañ ciy xaabaabal te day yàq lu bari ci diine macha allah oustaz mais dama gis ba fa benn affaire boo xam ne faa ñu taxaw ci muy comme alquran niñ ko fonke ni di ci def ay concours ñoo xamante ne dañoo mokkal alquran est-ce que jotul woon tamit xadis ñu ci def ay concours yoo xam ne day tax xale yi di mën a mokkal arbaan nawawi ak yeneen ak yeneen ak saxiix buxaari yi saxiix muslim parce que yaa na loolu c'est c'est possible fii Sénégal. mais tu as parfaitement raison. Mm-hmm. li nga wax ni lu pertinent nga wax. Mm-hmm. maanaam xam-xam loolu moo koy dundal. Mm-hmm. lu mel ne xeetu jongante yooyu nga xamante ni moom lañ ciy def. organiser fii au Sénégal mhm. ñu ciy dégg yenn prix yi mhm. bu xale yi kii ñu jox leen prix yu am solo wax ko ci mhm. que nit ñi fii dañoo populiser lépp li mooy lépp loo fiy def daanaka boo bëggee mu am benn code de popularité bi da nga koy populiser jegeel ko nit ñi jaarale ko ci média yi defal ko ay spectacle yoo xam day xaw un peu spectaculaire attirer les attentions voilà li ñuy wax attirer les projecteurs léeg-léeg foo nga def loolu pour mën a tamit oyofal xam-xam bi nit ñi bëgg ko xale yi jàng mu neex leen voilà léegi léegi xaadis tamit mënoon nañ ci di def lu mel noonu di ci mm. organiser ay concours mm. amoon na fi sax ci jamono mais du siiw trop daanaka xale yi nekk ci euh, kii yi di jàng rek ci lycée yi lycée arabe yi di jàng rek ñoo koy mm, yëg ñoo ko doon def voilà mais comme ni nga wax nii mm-hmm. lu doon lu baax la boo gisee yenn dëkk yi ci monde islamique bi mm-hmm. noonu lañ def ba seeni ndaw mm-hmm. mokkal lu bari ci téere xadis yi gis naa yenn téere dëkk yoo xam bëgguma leen tudd dañ fay organiser mokkal saxiixul Buxaari nga gis jeunes yoo xam ne dañ koy mokkal comme ni ñuy taree fatiha mokkal li kutubu tisa da ngay gis ay jeunes yu ko këru parcouriser parce que nit yàlla da ko jox faculté yoo xam ni hmm. da koy suuf faral di sous-estimer mooy yow li nga am ci ay faculté hmm. ak capacité yi nga am hmm. léeg-léeg doo ko xam c'est mais boo nekkee jeune nga koy tàggat di nga dem ba mën di mokkal loo xam ni. boo ko waxee nit sax du ko gëm. c'est ça voilà loolu tamit dëgg nga wax. mi noonu en tout cas loolu proposition boobu jox na la ko. te dama am benn jàngat ci xadis. xadis xam ne boo ko jàngee pour nga fàtte ko du yomb. même da ngay gis ñoo xam ne bañ nekkee xale nekk ci arab yi noonu yu ndaw yi daan mm. jàng ay xadis ba ni ñi ne ba fuñ toll mën nañu mën nañ laa tari xadis bi waaw dëgg la loolu tamit daf ma daf ma ci xaw a jaaxal xam nga waxu yonentu bi alayhi salatu wasalaam mm. am na lu ci yàlla def ndax yàlla dafa waxoon ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa mm-hmm. li muy wax waxu ko ci gis-gisu boppam ak bëgg-bëggu boppam mm-hmm. waxul lu dul lu ko yàlla waxyu mm-hmm. kon li mu doon transmettre ci quran bi nga xam ne moom waxu yàlla pur et la dara raxu ko wax yu la bu jógee ci yàlla li mu doon wax tamit ci xadis lu ko yàlla di xamal la mu nekk wax yu mu koy wax nit ñi moo tax dafa am benn sew-sew bu ci nekk boo xam du nekk ci waxu nit bu normal xadis loolu moom moo ci nekk mooy wax yu la min allah wax yu la bu ko yàlla jox te yàlla defal ko ci tamit tënku mooy inni utitu jawaami alkalim bi mu doon wax mooy tënku dafa nekk lu tënku lu éloquent loo xam ni mhm. danaan ad diinu nasiha mu mhm. nekk benn baat nga mën ci tënk lislaam dëgg nit ñëw ne ko qul li fi qawlan la asalu anhu ahadan baadak mhm. wax ma ci lislaam loo xam ne du ko laajaat keneen sa ginnaaw mhm. mu ne ko qul amantu billahi thumma astaqim mhm. waxal ne gëm naa yàlla te nga jub lislaam yëpp mën nga ko résumer ci ñaari baat yooyu gëm yàlla pas-pas bu wér sa xol ngëm yàlla bu wér te jub ci sa wàllu ay pratique say jëf. ak say jëflante. macha allah islam lépp mën nga ko résumer foofu. macha allah dañuy des ci pas-pas bu wér boobu nit ki nan ngay sentir ni yow sa bopp sans autant nit ñi seedeel la ko nga sentir sa bopp ni yow mii dëgg-dëgg yaa ngi ngëm goo xamante ni bii ngëm gu jige la même bu dee bu wérul sax normalement parce que doomu aadama yëpp ah, matuñu daal ci ci ci jubal loo xamante ni moom la yàlla digle lépp nan nga koy sentir ci sa ci sa bopp. léegi ngëm yàlla dafa am ñaari euh, piliers yu am solo yoo xam ni ci lay mm-hmm. tegowu mm-hmm. léeg-léeg nit ñi dañ koy fàtte benn bi mm-hmm. mooy weer bi nga wax noonu benn bi mooy dëggu bu fekkente ni wér na te dëgguwul nit ki dëgguwul wér lim gëm wér na ni gëm na ko wér na mais dëggu ci naafiq lay doon ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibuun mu jëfandikoo kadib muy dañuy ñëw ne la gëm nañ mhm. yàlla ne yow yàlla moo la yónni mhm. yàlla xam na ni moo la yónni mhm. waaye yàlla xam na ni ñoom li ñuy wax du dëgg li ñuy wax du dëgg mooy li ñuy wax ne seede nañ ne gëm nañ yàlla xam na ni ngëm googu ak seede googu nekkul ci ñoom kon bu ñu waxee ne ñoom attesté nañ attestation amu fi xam nañ ko nag mu leer seen bopp mais gëmuñu ko mooy dëgguwuñ ci kon bu ci dëggu amul du wér mais bu ci dëggu amee tamit te li nga gëm wérul muy baaxul ay subuhaat la ay lënt lënt la ba léegi du baax léegi-léegi yenn ñenn nit ñi li leen di tromper mooy dañuy jàpp ne ñoom dëggu nañ ci lañ gëm kon baax na. te gëstu lan te duñ gëstu ndax li ñu teg teg tegu na ci xam-xam bu leer. Mm-hmm. boo xam ne mooy xam-xamu diine bu set. di mm-hmm. alxuraanu yàlla ji ak sunna yonent bi. Mm-hmm. ndax yonent bi alayhi salaam mooy référence bi. c'est ça fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul. benn borom xam bu mag ci kàngaam yi jàlloon. dafa waxoon ne mooy Sufyaan uh, ibnu Uyayna. dafa waxoon ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa al mizaanul akbar ay naam alayhi tuaradu al aqwaal wal afaal fa maa waafaqahu qubil wa maa xaalafahu rudda kaa inan man kaan lool alimaamu alimaam ibnu al jawzi mi ngi koy toxal ci alfaqih wal mutafaqih ak aljaamia mooy ne dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li njëkk sax mooy bi nekk ci suratu nisa suñu borom wax ne lépp lu ngeen ute ci seen diine delloo leen ko si yàlla ak si yonentam alxuraan ak sunna mm-hmm. ndax mooy ñaari mbir yi nga xam ni mm-hmm. ñoom lañ mën a maîtriser mm-hmm. mu nekk suñu delluwaay en tant que jullit ndax ñun ñëpp ko bokk maak yow duñ ci wute yow keneen du ngeen ci wute mais leneen loo jëlal sa bopp te man fekk siw ma la si dañ ciy wute kon problème foofu la njëkk a commencé mooy yow nga am benn particularité boo xam ne man nekkul ci man ci loo xam ne gëm nga ko te man gëmuma ko bis bu ñu amee divergence du woo ci loo xam ne man gëwuma ko duma la ci fekk yàlla jox nañu loo xam ni ñun ñëpp buñ ko doyloo woon bu ñu wutee dañ ciy dellu mu nekk lu ñuy àtte suñu diggante mm-hmm. loolu moo tax mu ne woon wa'tasimu bi hablillah ne jamian yéen ñëpp mm-hmm. jàpp leen ci téere yàlla bi yéen mm-hmm. ñëpp léegi loolu mu ñu jàppaloo moo ñu mën a boole buñ ko bàyyee kenn ku nekk wala nga jàpp ko jàpp leneen te man jàppuma ci loolu problème lay doon kon léegi loolu moo waroon nekk référence bi moo tax Ibnu Uyayna wax ne yonent bi alayhi mooy balance bi balance bu mag bi nee na jëf yi ak waxi ci moom lañ koy nat lu tolloo ak mesure am ñu nangu ko lu tolloowul ak moom ñu delloo ko ak ci ku mën a jóge dëgg la voilà loolu moo tax kon euh, pas-pas bi lu ci nit ki dëggu dëggu dëggu ndax boo dëggoo te li nga gëm nekkul lu wér ci fanatisme la lay yóbbu voilà ci fanatisme la lay yóbbu loolu mooy loo xamante ne bi nit ki dafa jëfandikoo ay sentiment jëfandikoo yëg-yëgu xol te jëfandikoowul xam-xamu xel. Mhm. loolu mooy indi fanatisme. mais est-ce que loolu duñ ko jàppe ñàkk xam ak ñàkk jàng tamit. waaw loolu la mhm. loolu moo xam nga nit ñi. Mhm. jariñu leen jëriñ nit ki man miy wax ci lislaam dañ ne may nit jën jàngal ko napp moo ko gën. moo ko gën jëri ma jëriñu ma nit ñi lu gën. ma jox leen xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy niitoo. ndax xam-xam boobu mooy leer boo xam ne moo leen di génne ci dam yóbbu leen ci leer. comme na ko suñu borom subhaanahu wa taala waxee ne aw man kaana maytan fa axyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas mhm. kama mathaluhu fi zulumaati laysa bi xaarijin minha macha li nga xamante ne bi mooy ñàkk a xam mhm. lëndam la mhm. te li ci gën a dangereux mooy nit bu ci nekkee du ko xam mi ngi mel ne yenn médecin yi nga xam ne dañuy mën a xam yenn feebar yi nekk ci nit te nit ki moom bu ko bu ko kiyee symptômes yi du ko xam du xam ne lii moo ko dal bu demul ci nangoo dem ci médecin bi mu defal ko diagnostic pour wax ko ne ko lii moo la dal mhm. dafay continuer toog feebar bi di aggravé wu ci moom mhm. loolu moom mooy problème moo tax mhm. des fois yenn xeetu ñàkk xam yi bu nekkee ci nit mu boole ko dëgër bopp pour mu am leer goo ko niital dina jafe trop. c'est très parce que am na lu jiitu sa xel. moo pare voilà loolu pour dindi ko ren non léegi dafa am ñaari baat comme alquran ak sunna dafa mel ni dëgg-dëgg nit ñi xamuñu pour man boog ni ma ko jàppee sunna mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, léegi nit ñi dañuy utiliser baat boobu lu bari alquran ak sunna mm-hmm. eh, lan mooy dëgg-dëgg sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa sunna mooy la tradition prophétique mhm. mooy ses enseignements mooy mhm. yonent bi alayhi salatu wasallam lu mu fi bàyyi mhm. li nga xam ne yàlla moom moo ko ko jox ndax yàlla subhanahu wa taala bi mu yebale yonent bi alayhi salatu wasallam daf ne yuallimuhumul kitaaba wal hikma yàlla dafa yónni yonent bi alayhi salatu wasallam mu yor ñaari mbir di ko jàngal nit ñi mooy téere yàlla bi beneen bi ci des mooy al hikma al muhammad ibn idris al shafii dafa wax ci benn bi del umm nee borom xam-xamu alxuraan yi mu mës a jaar ci ñooñu jàng mhm. ci lislaam dëppoo nañ ci ne mhm. xikma boobu yàlla di junj ci alxuraan ne jox na ko yonentu bi alayhi salatu wasalaam mu ko ak alxuraan jàngal mhm. mooy sunnaam mooy njàngaleem enseignement bi nga xam ne bi muy jàngale alxuraan ci loolu la ko doon jàngalee parce que alxuraan détaillewul lépp diine des fois des fois da koy résumé yàlla day ñëw ne wa aqimu solata wa atu zaka taxawal leen julli joxe leen ah, azaka mais détail yu taxawal julli bi ci njëkk mooy waxtu julli yi mhm. tisbaar dugg na mhm. kañ lay génn tàkkusaan dugg na mhm. bu tisbaar duggee boo waree julli tisbaar ñaata ràkk ngay julli naka ngay jullee ràkk yooyu noonu ci kàmbal ci tàbbale ci kàbbar bi rukkoo yi sujóot yi alxuraan détaillé wu ci dara détaillé wu ci dafa ñëw fan la ko fan jullit bi war a mën a jëlee fan la ko jullit bi war a mën a jële hmm. waaw li mu ko wax ci heure yi mooy hmm. inna salata kaana lil mu'minina kitaaban ak aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi layli wa qur'an al fajr loolu dafa résumé juróomi hmm. eh, nu mu tuddati juróomi waxtu yi mais da koo résumé waxul benn bu nekk fu mu commencé fu mu yem li duloo ko shams ila xasaqil layli mooy tisbaar ba gee di jeex dañoo taqaloo kat julli la moo tax da koo taqale mhm. wa quraan al fajar mu ber ko ndax mhm. fajar dafa beru taqaloowul ak gée taqaloowul ak tisbaar mhm. moo tax mu ber ne quraan al fajar jëfandikoo quraan julli bi la ci nam ndax alquraan ji ñu ciy jàng dafa bari bëri inna quraan al fajri kaana mashhuudan alquraan ji ñuy jàng ci fajar gi dañ koy teewee ndax day fekk malaaka yi nga xam ne ñoo fanaan ak yow di waaja dem yi yéen doog yow di ñëw ñoom hmm. ñëpp ñu taxaw di déglu alxuraan ji ngay jàng. macha allah naam hmm. macha allah kon sunna buñ ko waxee. Hmm. mooy njàngale boobu fi yonent bi bàyyi. saxaaba yi teel a xam ne dafa bokk ci diine. ñu yittewoo ko di ko jàngal nit ñi. nekkul ku ci fiiroon trop nag. léegi loolu noonu. moom mooy sunna boob nga xam ne moom la nit ki jël war a def référence am bu dee def ne Muhammad alayhi salatu salaam mooy yonentam mhm. képp koo xam ne yaa ngi taxaw di wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah mhm. du ma jaamu leneen lu dul yàlla mhm. wa ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi seede ne yonent yàlla muhammad la yàlla moo ko yónni ci man war nga xool lan mooy sa rapport ak sa relation ak yonent boobu ndax seede boobu attestation boobu dafa nekk loo xam ne boo ko waxee dafa war a feeñ ci sa comportement envers lui mooy da ko war a jox cërub yonent mhm. yonent nag bu yàlla yónni ci yow mhm. da ngay topp ci ginnaawam wa in tutiu wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi mhm. yonent c'est pour nga topp ko mu lay digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi pas nga ni ko ba pare romb ko fa dem ci leneen lool moom boo ko waxee sa seede bi nga waxoon xoolaat ko bu baax macha allah macha allah en tout cas am na solo parce que ñu bëri dañ koy dégg mais mais ba ci ba ci ay jëf sax bëri na yoo xamante ni yonent sallallahu alayhi daf ko doon def kon war nañ koo mën a roy ci loolu yooyu ak ni bi daan na ko def mu wér war nañ koo mën a roy ci loolu am na solo loolu loolu benn kii la woon bu ndaw rek buñ bëggoon leeral balaa ñuy dugg ci wàllum actualité euh, te dama def benn seetlu ni ñu bëri dañuy jàpp ni ñi nga xamante ni bii ñooy jàng wàllum diine mënuñoo xam ne xew ci àdduna bi ak fi euh, euh, li nga xamante ni technologie fi mu àgg nii tey bu fekkonte ne am na ay leçons yooyu tiire yooyu jëlee ci loolu noonu ak ndaw ñi TikTok Facebook Instagram ni nga xamante ni bii coloniser nañ ñun ñooñu ak nouvelle ordre mondial bi loolu yan yan jàngat nga ci maanaam oustaz. waaw li nga xamante ni moom mooy phénomène bi ñu gis tey si mhm. jamono. Mhm. boo koo xamante ni dafay jàng diine di ko jàngat. Mhm. dafay inspiré wu ci diine. pour mën a comprendre li nekk ci ginnaaw. parce que ñu bëri si nit ñi. ci façade boobu ñu leen wan ci la ñuy yem. mooy loolu nekk seen kanam. ci la ñuy yem. duñ jéem a xool lan moo nekk si ginnaaw. parce que li ñu jox dañ jox benn technologie. de contrôle de manipulation. et de consommation. ñett yooyu ci laa koy faral di résumé. Mhm, mooy technologie bu ñu jox bu légère la. du mhm. technologie lourde. Mhm. bu ñàkk solo la parce que li ñu jox lépp. mën nga wax ne hmm. ay euh, kii la rek ay hmm. mbir yoo xamante ne da ngay bës fii def fii bës fii bës fii bës fii hmm. lépp design la rek ci kaw design du dara ko wala amul code booy tàppe amul lenn loo xam maîtriser nga ko ci ci outil bi nga yor boo yore smartphone maîtriser wuloo dara ci outil bi système d'exploitation bi sax fonctionnement mënoo koo xam mooy Android bi koy doxal wala OS bi koy doxal wala Windows bi mënuloo cee xam rien du tout li muy ci ay activité amul lenn lu la ko mën a xamal lépp dañ de koo nëbb liñ lay wan rek mooy page yi ubbeeku sa kanam mhm. loo ci soxla nga bës fii bës fii bës fii bës fii même boo jàngul mën nga ko te loolu day yomb ci yow yombal boobu nag moo ci nax ñëpp mhm. te loolu ki ko njëkk a commencé def mooy Bill Gates ak Microsoft moo ko jël banaliser ko noonu yombal ko mhm. ba nga xamante ni bi daanaka day accessible ci ñëpp léegi bi réseaux sociaux yi ñëwee gën a yokk loolu encore tàmbale ko ci Facebook. mooy li ñu tuddee ay page dépouillée. page dépouillée mooy page boo xam ni. dañuy def de sorte ko dafay facile simple d'utilisation. même ki jàngul bu ñëwee dana xam fi muy bind turam fi muy bind mot de passe am fi muy cliquer mu dem. amul dara lu fa nekk am na technologie bu nekk ci ginnaaw. Mhm. ci seen serveur yi la nekk. ak ci seen bureau yi ñu tiim ko seen ordinateur di programmer mhm. mais yow utilisateur bi page lañ lay jox boo xam ne dara du fa nekk mhm. dañ koy dépouiller mooy dañuy dindi lépp loo xam ne jàpp nañ ne lii daf koy gën a diisal mhm. dañ koy wàññi te loolu tamit moom moo nekk ci lu mel na Google boo gisee Google boo ñëwee seen page boo ko tijjee loo fay gis benn kii bu ubbeeku ni benn carré bu ubbeeku fi ngay bind fi ngay mm-hmm. bind li ngay recherche seen moteur de recherche bi mm-hmm. ak fi ngay tàppee mu dem mm-hmm. ak ci kaw yenn option yoo xam da nga koy am bu fekkee danga nga bëgg a dem ci sa boîte wala yu mel noonu le fekk ñu def ko noonu mu mu vide amul dara dara dara nekku ci ñoo ko def exprès dañ ko def pour lan pour wan la facilité bi ci nekk ak accessibilité bi ci nekk léegi nag nit ñi liñ ci yeewuwul mooy phénomène yooyu nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yooyu. Mhm. wala technologie bi nga xamante ni moom moo tasaaroo tey ci àdduna bi ak ci jaare ko ci smartphone yi ci tablettes yi ci ordinateurs yi. Mhm. am na lu bëri loo xam ne ay ngaañ la yu ci nekk ci ni dundee ñun suñu wàllu dund. benn bi mooy li ma tuddee wàllu euh, manipulation. Mhm. mooy ingénierie sociale bi ci nekk ci ni mu duggee suñu dund yi jaxase ko complètement jaxase ni ñu daan dundee. jaxase sax nouvelle génération bi ni ñuy xalaatee. ak ni ñuy fonctionner. ci lu bari. beneen bi ci des mooy hard soft bi nga xamante ni bii parce que da ngay wax euh, soft power bi wax tamit euh, beneen bi ci des bi nga xamante ni moom mooy hard soft bi léegi wala boog hard kii bi hard euh, kii bi waaye nu mu tuddati waaye soft kii bi soft power bi ak hard power bi mooy bu fekkente ne da ñëw nga ni danga nga nga xool ci ñaari côté yi daf ci am benn boo xam ne ay nax la yoo xam ne nit ki du ci bàyyi xel ci wàllu jikkoom ak nekkinam am ci boo xam ne dafay nekk ak moom contact hardware laa bëgg a wax. Mhm. software ak hardware. hard mhm. ak soft power feneen lañ koy wax. Mhm. yooyu li ñu koy faral di jëfandikoo mooy état yi. ci wàllu seen influence ci àdduna bi ak bi ñu am ci àdduna bi. voilà li ci nit ñi dul xam du ko di seetlu loolu mooy soft power bu dee hard bi mooy li nga xam ne ci jaay doole la lu mel ne li américains yi def. mais bi hardware bi ak software bi. mooy yow logiciel bi ngay jëfandikoo di ko utiliser loraange yim lay lor. ñu ci bëri nit ñi duñ ci bàyyi xel. ci seen vie privée bi ñuy jël di ko dugal ci biir réseaux sociaux yi. Mhm. lépp àdduna léegi loo xamante ni dañ koy waxtaanee ci réseaux sociaux yi. Mhm. weerante bi tamante dëmm bi. lépp lépp tout suñu vie yëpp ñu jël ko dugal ko foofu. Mhm. ku bëgg nit ñi xam la wala ñu bëgg la sax da ngay dem ci réseaux sociaux yi da ngay gis koo xam ne amul lenn lu mu mën a wan nit ñi. mais day nekk këram di ay affaire yu ñàkk fayda yu ñàkk solo. ñu baal ma sax ci ñàkk fayda yu ñàkk solo. mu jël ko di ko filmer di ko dugal pour xëy na mën cee feeñee mu nekk prétexte pour mu feeñ pour nit ki xam ko. loolu moom moo indi TikTok TikTok lool mooy philosophie am. Mhm. mooy yu banal yooyu banalité yooyu nit ñi ngi daan def seen biir kër yi nga xam ne kenn intéressé wu ko. Mhm. intéressé wul kenn. Mhm. léegi moom la nit ñi jël tey valorisé ko valoriser ko ba jël ko. def ko ci seen ay ay ay page nit ñi di ko xool di reetaan. wala ñu koy xool di yéemu. wala ñu koy xool di jaaxle ça dépend rek. parce que ñu xam sa journée daal yow lan la tey. def benn affaire bu ñàkk solo ndax koo xamante ni par exemple tey dañ ne mooy deuxième influenceur bi gën a siiw ci TikTok. te du def dara du tàll ay ñaari loxo. <laughs> daal di daal di daal di bu ci gémmiñ wax daal moom voilà bu ci say gémmiñ mhm. naka la mën a siiwee ba ay million de personnes di abonné ci moom di ko suivre loolu moo lay wan fi àdduna bi jëm ak suñu réseaux sociaux yi ak fi nga mhm. xamante ni bi fa la ñu mhm. nouvelle technologie yi jëmale beneen bi ci des mooy hardware bi nga xam ne mooy matériel bi ñuy bi ñuy bi ñuy jaxasool te bi ci gën a am gaañ mooy écran yi ci xale yi seen développement seen wàllu xel seen wàllu màgg ecran mhm. yi nga xam ne xale yi dañuy xëy suba ba ngoon sëgg ci buñ nekkul ci téléphone yi ñu ngi ci tablette yi wala ñu nekk ci kanamu télé yi mhm. mu leen di lor lu bare bare bari ci seen dund ak mhm. yoo xam ne waroon nañ ko mën a jàng tàggatu ci. ba ci seen santé sax. nouvelle technologie wàllu mm-hmm. santé beeg lépp. ndax sédentarité bi mu indi tamit ndax xale bi day xëy suba ngoon toog ci canapé bi di seetaan. Mm-hmm. dox bi daan dox. di yëngatu ak yooyu xolam di gën a mën a kii. Mm-hmm. loolu yëpp defatu ko. léegi yooyu yëpp nekk ay loraange yoo xam mi ngi ñu koy lor ci côté boobu. léegi. bu fekkee xool nga wàllu consommation. wàllu achat. dañ lay jëndaloo ba jëndaloo loo bëggul jënd. yow da ngay di xool uniquement pour xool lan laa war a mën a jënd. nit ñi commencé consommation bi fii xëy na vente en ligne développé go fi trop ndax nit ñi li ñuy def mooy dugal ay ci statut yu dugal ci mm. Facebook nga yónnee livreur wala yooyu mm-hmm. mais buñ demee ci côté fi nga xamante ni bi amazonisation mm-hmm. voilà du commerce mm-hmm. nga xam ni léegi dem nañ ba dugg ci système Amazon système boo xamante ni bi tout est robotique nga xamante ni dafa gën a efficace bis bu ñu àggee foofu dinañ gis consommation bi mu ñuy yóbbu encore voilà beneen bi ci des mooy mooy bi ñuy contrôler ak di ñu di ñu surveiller ndax appareil yi nga xam ne jox nañ ñu ko mën nga wax ne dafa am ay nopp am ay bët mhm. te nopp yeeg bët yi mënuloo ko yamloo ci li mu war a dégg mënuloo ko yamloo ci li war a gis yow li muy dégg ci yow ak li muy gis ci yow mënuloo koo xam ndax yow sa sa appareil mhm. xanaa nga jël scotch taf ko ci euh, kii bi kii bi écran bi kii bi caméra bi mhm. voilà wala nga yàq kii bi tamit micro bi te boo ko yàqee moo doo ko jëriñoo c'est ça micro yu sensible ñoo ci nekk yi nga xamante ni bi moom mooy ay logiciel yu nekk ci biir yu am accès ci micro bi mën ko déclencher di la dégg xamuloo nu mu mhm. li nekk ci ay logiciel mhm. ak ay application yu nekk ci biir yu mën a déclencher li nga xamante ne bi moom mooy caméra bi mhm. di la gis kenn xamul nu mu toll beneen bi ci des mooy géolocalisation bi ci nekkat mooy di topp say déplacement foo nekk mu xam ko mhm. foo dugg mu xam ko loolu ñu bëri xamuñu ko appareil bi daf lay géolocaliser mhm. même bu fekkee désactiver nga ko mhm. désactivation bi juste pour yow mu bañ la wan li muy li muy mais ki nga xamante ne bi moom moo maîtriser système bi système bi nga xam ne moo koy doxal moom bu bëggee xam foo dugg ak foo génn xam na ko bu baax mais est-ce que loolu ci réew yëpp lay exister ñu nangu loolu subhanallah lé ci réew yëpp la tey fi mu nekk nii sa portable boo defoon b yenn affaires yi moo lay feeñal yow boo fi defoon dara ñu lay enquête ñi lay enquête li ñu njëkk a def mooy jël sa portable hmm. appel yi nga def message yi nga yónnee hmm. communication bi nga def hmm. ak tamit yi nga def surtout déplacement yi parce que boo nee nekku moon bërëb sàngam te sa portable ne yaa nga fa woon heure sàngam mënoo ci dara loolu imma ci yi nga xam ne moom lay géolocaliser wala ci connexion yi nga xam ne yaa ngi koy connecté wu ci antenne relais yi ndax tey ngi yaa ngi fii ni HLM Grand Yoff sa portable dafa connecté bi nga xamante ne bi moom mooy fournisseur taxe bi mm-hmm. fournisseur de de réseau bi la fournir réseau moo xam ku ci comme kan la ci doon ci fournisseurs yi fi nekk mm-hmm. fi mu nekk ni antenne am bi fi gën a jege mm-hmm. sa portable ci la connecté wu heure ba telle heure ñoom dañ koy xam ci seen réseau ci seen serveur bu xoolee seen serveur dañuy xam ne yow heure sangam jour sangam yaa ngi woon tel bërëb ndax sa portable foofu la doon signalé c'est kon loolu mooy wane rek portable yi ni nga xamante ne bi noonu noonu la ñuy jébaane leen li yi nga xam ne ay logiciel d'espion la yoo xam ne ko dégg nit ñi xamuñu sax turam mm-hmm. am na lu mat ñaari at wala ñetti at ma defoon benn conférence université waxoon benn logiciel bu tudd Pegasus mm-hmm. Pegasus boobu benn société israélienne moo ko développé ñoom dañ koy utiliser mm-hmm. ci façon boo xamante ni bi yow mënuloo ko xam ndax bu njëkkoon ci WhatsApp la daan jaar dañ lay woo buñ la woowee boo décroché boo décroché wul logiciel bi dafay dugg ci biir portable bi bu duggee ci ah. portable bi lépp loo defati ci portable bi ñoom mën nañ ko gis mën nañ ko xam léegi man su ma amee man man pour mën a jënd logiciel boobu su ma la bëggee espionner dama la koy woo rek à appel bi ci laa koy yónnee sa biir portable bu duggee sa portable mhm. koo woowati ku la woowati ko bind ku la bind lépp dama koy xam kon ñi ñoo diriger monde bi aussi waaw léegi nit ñi nag li dangereux mooy nit ñi xamoon ko mais malheureusement li ëpp ci nit ñi xamuñu ko ba mhm. pare nag boo dee jëfandikoo outil bu dangereux wee noonu mhm. te xamuloo ko ngaañ gi ci lay gën a rëy moo tax kon ñeme bi nit ñi ñeme tey téléphone portable yi ak yombal bi leen ko yombalal ngaañ gu rëy mi ngi ci nekk mais malheureusement ñu bëri su ñun sensible uñ ci li nekk ci ay gaañ c'est mais ak lii yëpp nekk ci biir est-ce que kon xel dal na biñ toogee benn jour rek ñu ne whatsapp doxatul facebook doxatul youtube doxatul maanaam réseau yoo xamante ni bii whatsapp facebook genre instagram doxatul est-ce que ci diggante boobu xel mën na ci dal yow mi nga xam yaay affaire bi waa léegi li nit ñi war a bàyyi war a bàyyi xel mooy bu black out amee li ñu tuddee mm-hmm. black out mm-hmm. bu benn crash amee ci àdduna bi ci réseau bi mm-hmm. réseau mondial bi bu ñu xëyee benn bis fibre bi am problème mu yàqu lan la mën a bloqué lan la mën a yàq ci li nga xamante ni bi mooy noonu la àdduna bi di doxee parce que am ñoo xam léegi seen liggéey lépp ci ay connexion lañ koy liggéeyee mooy e-working am na ñoo xamante ni fii dañuy toog dëkk di liggéey ci beneen dëkk wala yu mel noonu serveur yi nga xam ne ci àdduna bi léegi nit ñi seen données yu sensible ci ay serveur lañ ko def loolu ñu jël waroon nekk xam-xam bu ñu yor léegi yow loo war a xam wala nga war koo denc dootoo ko denc sa xel te loolu ci li ñuy neewal doole ñun doomu aadama bokk na ci voilà ci li ñuy neewal doole loolu bokk na ci mooy yow li nga waroon di jàpp tey benn mhm. numéro téléphone wala rendez-vous su ma la ko waxee sax boo ko deful sa portable doo ko jàpp ah, c'est léegi nag yow man gi nga mënoon di mémoriser mhm. lépp lu aju sa wàllu dund mhm. yaa ngi koy yàq di ko affaiblir parce que da nga jël sa dund yëpp sukkandiku ko ci téléphone moo tax ngay gis ku téléphone am réer mu mel na ko dof dof googu ngay gis nit di ko dof ci téléphone am réer mhm. bis bu tey amoon benn problème bu am ci réseau bi ba données yi ci nekk yëpp dem àdduna mhm. bi moo koy dof xam nga téléphone nit bu réeree nit ko mooy mel na ko dof àdduna mhm. bi dina dof dof gu raw googu bis bu xëyoon benn jour réseau bi yàqu mhm. am benn panne boo xam ni mhm. wala benn sorte de virus boo xam ni mhm. dafa ñëw yóbbu données yi nekkoon ci réseau bi yëpp donte gars yi xëy na am na ay kii yuñ def sauvegarde yuñ def denc ko c'est ça am na ay yenn serveurs yu gars yi def def ko ci ay yenn sax ay montagne lañ bënn def fa ay serveur denc ko fa pour denc fa yenn données yi pour kii ko ay banque lañ koy tuddee pour au cas mais ba léegi dina am loraange bu rëy macha allah en tout cas am na solo oustaz mais dafa am benn mbir boo xamante ni aussi faaw ñu taxaw ci mooy influence bi nga xamante ni bii moo am ci réseau yi maanaam wàllum góor jigéen yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg tout le temps lesbienne yoo xam ne daal fi ne nii bu njëkk daawoo ko dégg bu njëkk daawoo ko doo romb sax ba dégg fenn mais léegi dafa yomb dangay ngay gis ñu topp góor buy toppandoo jigéen wala jigéen buy toppandoo góor loolu fan la lan mooy bànqaas bi fa mu waa xam nga loolu mooy li nekk ci yombal bu ñu yombal réseaux sociaux yi. Mhm. yombal euh, connecté entre nit ñi jël ko mën naa wax léegi dañoo zombifié suñu suñu nit ñi. Mhm. mooy léegi da toog ci mhm. benn salle ñu toog ñun ñi mhm. kenn du wax ak sa morom. ku nekk yaa ngi sa téléphone portable. voilà am na sax benn euh, anecdote bu ñu ciy wane ñoo xam ne dañoo nekk ci si benn salon toog di waxtaan mais ñu ngi waxtaan ci seeni i téléphone la ñuy waxtaanee. di bindante ay message te ñu ngi toog ñoom seen i jëmm. li ma lay wax dëgg la de loo xam ne ñu ngi toog seen seen i jëmm mhm. nekk ci réseaux sociaux yi di waxtaan waxtaanatuñ teg portable yi mais ci portable yi la ñuy préféré waxtaanee surtout nouvelle génération bi c'est ça léegi nag mhm. bi nga xamante ne bi dem nañ ci noonu mhm. voilà loolu tamit mooy beneen aspect bi ci nekk mooy caaxaan ak yàqute bi ci nekk ci contenu bi loolu tamit c'était voulu lu ñu bëggoon la dès le début. ndax boo xoolee lu mel ne wàllu pornographie. wàllu tamit caaxaan yi nga wax noonu mooy lobby LGBT yi nga xam ne tey dañ ko bëgg jël samp ko ci àdduna bi. c'est ça nanguloo ko nit ñi mu nekk benn mode def vie. Hmm. boo xam ne dañ bëgg nit ñi jël ko nangu ko mu nekk lu nit ñi accepté. Hmm. ne góor mën na tànn nekk góor wala mu nekk jigéen jigéen hmm. mën na tànn nekk góor wala mu nekk jigéen. du nekkatul ne li muy doon ci genre am. ci biologie am la jëlee. mais lu muy def choix la question de loolu mooy indi la théorie des genres. léegi loolu ki ko njëkkoon a ki nga xamante ni bon xëy na sax mën nañu wax parce que Alfred Kinsey dafa defoon benn rapport. Mhm. Euh, aux États-Unis mhm. boo xam dafa defoon benn étude def benn enquête rapport boobu noonu bi mu ko génnee. Mhm. wàllu dundin ak wàllu sëyin ci en Occident. Hmm. yàquteem dëgg dëgg dëgg ci ana yu mujj yi foofu la tàmbalee hmm. laata muy ñëw sax ay France ñuy wax ay théorie des genres. Hmm. ci wàllu am liberté liberté sexuelle. nit ki moom boppam lu ko neex mu def ci wàllu sexualité am. loolu noonu ci lañ dafay détruire nekkinu doomu aadama fii ci kaw suuf doomu aadama foog mu ay limites. voilà parce que doomu aadama. nekkam ci kaw suuf fii mënta mel na comme nekku bàyyi may moo tax boo gisee ñàkk gëm yàlla bi nga xam ne ci lañ tabax tey àdduna bi tabax ci civilisation bi foofu la problème yëpp jóge mhm. ndax buñ ne kenn ci euh, philosophie daf ne mhm. bu jë bu bu yàlla amul si Dieu n'existe pas tout est permis daf ne bu yàlla amul lépp lépp lépp lépp mën na nekk mhm. amul amul lu nit di jombatee def bu fekkee mhm. yàlla nekkatu fi parce que yow boo ne nekkatu fi doomu adama kon nekkam fi amul benn sens ah, waaw voilà dañ ne doomu aadama moom moom la comme li Épicure di wax Épicure mhm. bi mu ñëwee moom bi mu waxee te Épicure benn philosophe grec la boo xamante ni bi mu ñëwee mën nañu wax ne moom moo njëkk a indi wàllu wax nit ki ne sa dund daal amul lenn lu nekk ci ginnaawam da nga mhm. jékki nekk fi ci àdduna mhm. profitool ci dund bi nga fiy dund mhm. def lu la neex profitool ci say bànneex balaa nga fiy jóge ndax lu gàtt la léegi kon profitool ci loolu xam-xamam loolu mu wax noonu ki ko jël tasaare ko ci ginnaam Lucrèce la Lucrèce benn taalibeem la bu jàngoon ci moom philosophie philosophie boobu nga xamante ne mooy philosophie épicurienne moom moo tey nekk mën nga wax laltaay di fondement wu tey civilisation occidentale bu moderne bi mooy àdduna jouissance la. Mhm. caaxaan la lekk naan sëy. Mhm. amul leneen lu nekk ci ginnaawam. dëgg la voilà léegi loolu tamit moom la Darwin Charles Darwin jël théoriser ko. Mhm. ci théorie de l'évolution boobu mu doon wax. ci na doomu aadama daal dafa jékki-jékki am. nekkoon bàyyi ma di changer di changer ba nekk nit. kon léegi yàlla ju ju lay wax lii baax na li baaxul newatu fi. <laughs> yaay xool rek sa dund ni nga ko bëgg a dundee nga léegi nag bu fekkee noonu lañ def. ñu ne doomu aadama kon mën na def léegi ñooñu daal di profité ci outil boo xam ne xam nañ ni. Mhm. nit ñi ngi koy jëfandikoo ci façon boo xam ne bu jéggi dayoo la. Mhm. ñu daal di ci profité di dem ci réseaux sociaux yi ak lépp. Mhm. yu ñaaw ak yu bon yooyu yëpp nga xamante ne nit ñi ci ay jamono xamuñu ko woon. ñu jël ko di leen ko exposé guddi ak bëccëg. te loolu yow bu yàggee dootoo ci sensible ati ndax nit ñi bu njëkkoon balaa ñuy gis yooyu. daan ko dégg ci lañ ko gënoon a bañ. nitu ñaari tur la wala yooyu mhm. dañ daan wax fii au Sénégal ñun biñu nekkee xale ne koñ bu mu jaar boo fa jaaree da nga dem safara mhm. <laughs> man mës naa ko dégg mhm. loolu daf ma tiitaloon ba nga xam ne su ma mësaan a dégg ñu naan am na koñ bale ko fa dëkk koo xam ne borom koñ boobu daaw ma fa jaar booy seen drapeau moom voilà mais léegi voilà gis nga drapeau boobu muy seen rainbow boobu muy drapeau arc-en-ciel boobu dañ koo jël di ko wan nit ñi partout bu dee ci dëkk tubaab bi la moom dañ koy jël di ko takk di ko def noonu pour miinal ko nit ñi beneen bi ci des mooy jaarale ko tamit ci li ñuy xool ci li ma lay wax nii. gis nga euh, kiiwu xale yi fowukaayu xale yi. Mhm. yi ñuy seetaan ci dessin animé yi. c'est ça gis nga dessin animé yooyu. yi ci am temps yu bees yi nga xam ne moom lañ génne. Mhm. amul boo ciy seetaan lu dul ne di nga gis saa su nekk ñuy wane. arc en bi couleur arc-en-ciel bi di ko wan pour minal ko xale yi mhm. parce que couleur boobu mhm. comme drapeau la boo xam dafa am lu muy jëmmal mhm. am lu muy symboliser dañ bëgg loolu teel a nekk lu xamel xale yi jël familiariser wu ak moom te familiarisation boobu dafa nekk lu am solo ndax xale li nga miin bi ngay nekk xale bu ndaw di ko gis saa su nekk boo màggee dafay dafay des ci sa xel dafay takk sa xel dafay taq sa xel dañuy dem ba xale yi couleur boobu daf leen di neex mhm. buñ gisee drapeau bu mel noonu da leen di neex la muy symboliser tamit mën na leen a neex te loolu moom mooy seen jubluwaay ci loolu moo tax war nañoo gën a moytu gën a vigilant daal macha allah voilà macha allah xam na fi ñuy jeexale ci actualité mooy euh, gis nañ tamit ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ay ndaw léegi maanaam di dund euh, ba pare bëgg jël seen bopp def leen ay jaamu seytaane maanaam moo xam ay influenceur lañ ay rappeur lañ wala ay waykat lañ ñooñu aussi euh, sa jàngat ci ñoom waaw bu dee lu ñuy tuddee satanisme. Mm-hmm. ak euh, vendre son âme au mm-hmm. muy jël sa bakkan jaay ko seytaane. Mm-hmm. nekk ci lu ko neex pour mu jox la succès. loolu bi mu tàmbalee yàgg na tuuti. am na benn église boo xamante ni bi ki ko jiite mu ngi tudd Anton LaVey. Anton LaVey ci ki nga xamante ni bi moom la ressourcé woo dëgg. moom lay jëlee dëgg mooy Aleister Crowley. Crowley benn anglais la woon boo xamante ni bu doy waar la kooku satanique bu mag a mag a mag a mag la. kooku am na benn secte boo xamante ni ordo templi orientis la tudd. ñu koy tuddee oto. Mhm. kooku moom moo ko tamit euh, inf moo ko tamit euh, nu mu tuddati sax inspiré. Mhm. moo inspiré kii boobu noon secte boobu secte satanique bi gën a mag ci àdduna bi boobu la muy oto. Mhm. mais Aleister Crowley. bi muy def église. de du Dia église de Satan. Mhm. mu def ko mi ngi ko defee fële Los Angeles Californie. Mhm. mi ngi gën a inspiré woo ci ki nga xamante ne bi moom mooy Aleister mhm. mu bindoon benn téere bu tuddoon Téléma. Téléma boobu ne dafa dem Égypte. benn jinne benn rab feeñu ko. wax ko ko déey ko ko mu xam ko ci la ko bind. léegi. ñooñu tasaare loolu nga xamante ne bi moom mooy satanisme boobu ci àdduna mu jaar ci lu ñu tuddee ay société secrète ñu bëgg koo jël laal ko ci àdduna bi ndax loolu dafa ànd ak benn plan mondial ba nga xamante ni li ñuy wax chaque fois ci nouvel ordre mondial mooy mondialisme mondialisme mooy boole bi ñu bëgg a boole àdduna bi ci suufu benn gouvernement mondial benn religion universelle ak tamit ci wàllu économie ba léegi ci wàllu finance ñooñu noon loolu ci la ñuy dox guddi ak bëccëg yore alal judul jeex yore kàttan yore doole ci li ñuy jaar bokk na ci wàllu showbiz pour coopter ñi nga xam ne ñoo jeunesse bi. Mhm. ci nax leen. Mhm. ci toppaloo leen seen bakkan ak seen i bëgg-bëgg. Mhm. léegi loolu pour ñu réussir ko dañuy am ñoo xamante ni bii. ay cobaye la ñuy doon. cobaye yooyu mooy dis disant star yi ngay gis. ñu leen di jël di leen produire. di leen jaarale ci ay studio yu mag a mag ñu leen di produire di leen médiatiser. xale yi di leen roy di dof ci ñoom di yuuxu. ñoo ñu yàqute gu bëri ji dem ci xale yi ci ñooñu lay jaare mais dañu war a xam ne ñooñu. pour ñu mën a àgg ci ci ci niveau yooyu ñu àgg ci succès. dañoo jaay seen bakkan seytaane jaayonte ak moom ba noppi. jël seen bakkan jox ko. pour liggéeyal ko nekk ay surgaam. bu ñu duggee ci loolu ba mu jekku leen def leen jaamam. ci lañ leen di jox semblant succès boobu ci kaw. léegi nag di leen utiliser pour yàq xale yi. ci ginnaaw tuuti. ñi fi nekkoon doon way. dañ daan faral di yow daaw leen dégg ñu def affaire satanisme. ki ko ci njëkkoon a commencé mooy Michael Jackson. bi mu demee ba commencé bëgg ci génn ñu rey ko. Michael Jackson. Mhm. ay jamono moo fi nekkoon. Mhm. way fi lu mel ne thriller. Mhm. def fi ay clip yoo xam ne affaire u jinne affaire u rap affaire soppeeku yooyu la ci doon def. gars yi jox ko succès ci saa si ñim jamonoon teel dàqu leen woon a way ku mel ne ay Prince. wala ku mel ne ay Lionel Richie. ñu mel noonu nga xamante ni mënoon nañ way dàqu leen woon way ku mel ne ay Stevie Wonder. mais ñooñu daawuñ def yi muy def moom mu dem dugg ci loolu transformé wu. xeesal def ay affaire dugg ci lu nekk ñu jox ko fi succès planétaire dàqu leen woon way dàqu leen woon spectacle xëy na sax spectacle tamit forum la woon parce que nee nañ moom moo fi njëkk a jël ay clip def ci spectacle boo xam ne nit ñi xamuñu woon loolu mhm. loolu dëgg la mais quand succès am na leneen lu nekkoon ci influence bi leen dàqoon bi mu amoon mhm. léegi non dañ ñoom ñoo ko imposé woon ci monde bi mhm. Michael Jackson mi ngi mel ne kon ne mooy nga ne Madonna rek Madonna amul benn talent ndax Madonna booy li wër ko bon ba àgg ci moom da ngay dëpp mm-hmm. dafa nekk léegi mi ngi ci kabal kabal juif bi nga xamante ne affaire sorcellerie la ak mm-hmm. magie noire yu bon dafa taxaw ci télé bi ñëpp di dégg ma ne léegi ci loolu la dugg ñooñu fe seen bonte foo ko natt weesu na ko Michael Jackson bi mu demee ba commencé di leen critiquer di wax ci mm-hmm. ay Illuminati di wax ci yu mel noonu mais ci dañ ko rey dañ ko liquider voilà mooy ne boo ci duggee piège la boo demee ba commencé di critiquer wala nga bëgg génn ñu liquide la Tupac Shakur mhm. bi mu nekkee rappeur mhm. ñëw commencé di wane ne moom révolutionnaire la bañkat la mhm. di xeex di taxaw di leen dénoncé dernier album moom bi mu tuddee ko woon ko Kill Kill Illuminati Kill Illuminati mooy ne moom dafay ñëw pour xeex rey Illuminati yi loolu la loolu mooy objectif am di leen dénoncé publiquement mais dañ ko liquide waaw dañ ko rey te pour ñu liquider ko il fallait que ñu monter benn guerre boo xamante ni côte est côte ouest la digganteem la woon ñoom ak ñoom Big D léegi loolu indi ay ay problème mhm. léegi ba ñu rey ko bi ñu ko reyee pour camoufler rey bi ñu ko rey. Mhm. ñu rey Big Daddy. macha allah ñu rey ko léegi loolu noonu. Mhm. nekk mbir yoo xamante ni maanaam jeunes yi comprendre uñ ko ci ne ñooñu nekkoon ci monde boobu ci wàllu musique bi. moo xam ñi nga xamante ni bii li leen li meññ. moom mooy euh, beneen côté bi parce que ñoom seen musique boobu yëpp ñoom ñëpp mën nga wax ni fi nga xamante ni foofu lañ jógee mooy blues. te blues. ki nga xamante ni moo ko gën a médiatiser di Robert mm-hmm. Johnson. Mm-hmm. ñi nekkoon ci suuf ci côté Mississippi bi. Mm-hmm. Robert Johnson dafa wax carrément ne moom li ko tax a mën blues ndax blues guitare la cosaanam. dafa dajeeg seytaane. parce que dafa doon jéem blues mënul. ñu koy saboté ne ko yow bàyyi li nga dem defi ji leneen mu dem deux ans mu ñëwaat di gitaar guitare boo xam ni spécialiste yi dañoo wax ne kii li muy def nii kenn xamul fu mu ko jàngee ci àdduna. parce que day toog di guitare nga am impression ne ñaari nit ñooy gitaar ci ñaari voix la doon guitare ba pare di way loolu jaaxaloon ñëpp ñu laaj ko fan la ko jëlee mu ne dafa dajeeg seytaane ci benn célébé yoon muy Carrefour ni dox ci àll bi dajeeg moom fenn mu wax ko ne ko bu fekkente ni jaay na ko ba kanam mu jàngal ko jox ko succès ci blues Robert Johnson ñëw wax loolu ba noppi way ko ci albumam ñëpp di dégg loolu moom moo euh, may doole blues blues boobu noonu moom moo meññ hip hop bi ngay gis nii moo meññ Euh, musique country bi noir bi blanc américain yi di def moom moo meññ rock rock boobu moom moo meññewaat musique metal metal satanisme la pur et dur mhm. death metal black metal yooyu yëpp satanisme la mhm. hip hop bi satanisme bi mi ngi ciy gën a feeñ de plus en plus mhm. surtout ku mel ne ay Jay-Z mi ngay gis nii bokk na ci ñi nga xamante ne ñuy wax na ay prêtres sataniques lañ yoo xam ne ñoom seen satanisme nëbbatuñu ko voilà satanisme bi au début xawoon na nëbbatu tuuti. Hmm. bi ci jeunes di dugg affaire u feeling la woon affaire yu mel noonu mais dem nañ ba ñu war xam ne carrément. Hmm. satanisme moo nekk ci ginnaaw. boo yu bëri dañu yaakaar ne hip hop. Hmm. affaire culture urbaine la. affaire bañ la kaas wax say soxla mais dañuy wax. hip hop hip hopeur yu mag yi nekk ci àdduna bi kaasuñu. kaasuñu rien du tout duñu ay casseurs. voilà ay complices lañ sax ci système bi fi nekk. te ñi ñuy liggéeyal mooy industrie musicale bi. ñu bëri dañu yaakaar ñooy produire seen bopp. bu ñu waxee ñu ne ñu ne exemple Jay-Z dafa am dafa yor euh, nu mu tuddati euh, dafa yor label dafa yor maison de disque am mais yooyu mm-hmm. ay sous la ñi nekk ci ginnaawam mooy maison de disque yu mag yi lu mel ne ay mm-hmm. Warner lu mel ne ay mm-hmm. Disney ñoo ñoo nekk ci ginnaaw ñooñu kuñ produireul doo am succès te ñooñu nag foofu la satanisme yi foofu lañ la ko imposé ay tubaab yu weex tàll ñoo fa nekk ay juif ak ay yi ay financiers yoo xam ne ñooñu ñoo ŋànk àdduna bi kon hip hop bi foofu lay delluwaat encore mais du ay affaire yoo xam dañu yaakaar ne ci ghetto yi rek noir américain yi ñoo koy jël nii di ko wayantu wala yooyu déedéet hip hop gën dépassé na foofu léegi moo tax kon na jeunes yi gën moytundiku gën sensible gën yeewu xam ne àdduna bi ñu nekk àddunay na mbaay la lu bëri ci lu nit ñi di gis ci kaw nii la nekk ca gannaaw ute na ak li ñuy gis ci kaw voilà léegi nag nit ñi ci bëri ci technologie beeg mhm. wàllu hip hop bi wàllu showbiz bi li ci nekk ci kaw rek la ñuy gis mhm. mais loolu mbiru seytaane la mhm. seytaane bu lay nax noonu la lay naxee da lay jël dara di la ko mirwaate ba nga gis ko boo ñëwee agsi nag mu soog la kepp léegi wan la réalité bi te dootu mën a génn yal na yàlla sàmm amiin allahumma salli ala muhammadin